oustaz ñu ngi lay dalal bu baax di kontaan ci ni nga tooge fii ñu la doon laaj ci suñu diine di la laaj tamit ci xarit di la laaj ci wàllu sëy euh, di la laaj maanaam xarit ndax am na ba léegi di la laaj tamit diine lan la wax ci ñaar ñoo xamante ni dañuy sëy ci jëkkër ak jabar te jëkkër ji di dóor jabaram guddi ak bëccëg mm-hmm. di la laaj tam nan lañu war a sàmmee suñu diine ba nga xen kenn ku nekk wan ngaa mën a xam sa diine mm-hmm. te yéen ñi ngeen xam ni yàlla moo leen fi teg mm-hmm. ngeen xam ko jàng ko mm-hmm. ma bëgg nga wax ñu ko nga xamal ni suñu diine bu baax loolu laa ne woon ñetti pompe yooyu ma laaj la ko waaw jërëjëf soxna Kumba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu mboolem ñi nga xam ni ah toog nañ fii àdduna nii rek la maanaam boo toogee ba benn jamono nga dajale say njaboot say xarit say am di jàmm ngeen waxtaanee seen wàllu diine kenn ku nekk xamaat la ko war loolu dafa doon loo xam ne lu am solo la ci lislaam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko def rawatina nag ci weer wu tedd yi nga xam ne moom la ñu ne di ko jeexal ndax weeru koor weer la woo xam ne buñ ci nekkee ba koy jeexal war nañoo góorgóorlu ba ginnaaw koor gi du duñu defaat loo xam ni ah eh, ay bàkkaar daf ñu ciy fekk kon buy jeex kenn ku ne war ngaa mën a xam fi ngay teg sa tànk mën koo dundee ba déwén macha allahu taala li nga njëkkee nag dafa am solo muy wàllu sëy gis nga loolu dafa sacré dafa doon loo xam ne sunu borom moo ko tànnal boppam euh, wàcce ko mu doon lu sacré nag ndax yàgg ngeen a dégg ni ñu ni sëy ña ngi koy takkee ca arache ba am na sëy yoo xam ne bu ko yàlla takkee ca arache da koy def ci xelu nit ñu dox ko fi suuf am na sëy yoo xam ne bu ko yàlla takkee ca kaw day yabal jibril ni ko boo demee neel sayyiduna muhammad maye naa diw ak diw lu mel ni sëyu fatima ak sayyiduna ali yàllaa ko mayal boppam lu melni ni Seydou Seydina Ousmane ak Seydatuna Roqaya yalla ko mayal bopam ndax yalla subhanahu wa taala bi Seydina Ousmane de ci Umu Kalsum di doomu yonenti bi mu faatu ci la yalla jël euh, wax yonenti yalla Muhammad diko may ko kon nak sëy sacré la ginnaw ba yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na nak sëy bu nu takk fii jàppal ni yalla daf ko valider ba pare so ko def ci xelu nit ñi ngir ñu ngir ñu dox ko ndax di nga gis ñoo xam nañ and ay ati ati yalla dogal sey seen digënté yalla dafa takul sey bobu waye sey nak bu nu xasee ba maye ko jël jigen may ko gor yalla neena dafa am noo len waro doxale ku jigen ki yalla neena amna ak yo xamni yow mi jigen ya ko yoreel sa borom keur gi waaw bi ci njëkk moy am la an la tam nafsaha moy mu baña téré bopam borom keuram jigen mu baña téré bopam borom keuram moy ak bi ci ñaarel bi moy mu baña wor ben fan lu dul kooru farata nag laa wax lu dul weeru koor gii wala muy fay koor ku jigéen ya pour wax la daraja ji yàlla jox jëkkër ci kaw jawaram mooy ku jigéen ki sañ ta woor benn fan lu dul kooru farata lu dul dafa tàggu borom këram ni ko man kat damaa bëgg woor kooru naa fi la jaaroo ko jaamoo ko sama borom bu ko borom këram ne d'accord naa ci mu woor ko bu ko borom këram ne d'accord ma ci bu ko wooree bàkkaar la cay am waaw bokk na ci àq bi nga xam ni itam ku jigen ki yoral nako borom kërëm gi moy sañta genn buntu kër gi te tàgguwu ko ni nga ma ni ko ma ngi buntu kër gi sañu ko bu ko defé nako wor ni mi ngi ci rebbum yalla ba moy muy ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ben na bo jigéen bayam da ne bi baay bi febaré mu ñew ci yonent bi ni man kat dañu maa woo ma ni ma sama baay da febar mu ni ko demal tagu sa borom kër mu ni ko dafa tukki ko demal toog bam baay bi gën a sonn ñu wax ko loolu mu dem ci yonent bi mu waxaat ko loolu ba baay bi faatu ñu woo ko ni ko sa baay faatu na nag léegi xanaa mën ngaa ñëw mu tàggu yonent bi mu ne ko demal wax ko sa borom kër mu ne ko dafa tukki mu ne ko kon toogal ba mu ñëw bi borom kër bi ñëwee ndaw si wax ko ko mu ànd ak moom dem ca dëj ba ñu wëññeeku ñëw ci naa Seydina Muhammad bi nu ñëwee ci yonent bi yonent bi wax leen ni yàlla kat jéggal na sa baay waaye mi ngi ko teg ci nangul gi nga nangul sa borom kër yow nangul gi nga nangul sa borom kër xaar ko ba mu ñëw nga ànd ak moom parce que boo génnoon yàlla rëbb la rëbbaale sa baay ba nga jëm waaye nangul gi nga ko nangul toog xaar ko ba mu ñëw nga ànd ak moom dem ci noonu ci loolu la yàlla dëgg ba jéggal ci sa baay pour wax la ni Adja jëf ju baax nit mën na koo jëf yàlla yërëm ci keneen nit mën na koo jëf yàlla jéggal ci keneen yonent bi nee na su doon digal nit mu sujjootal nit damay digal soxna mu sujjootal borom këram su ma doon digal nit mu sujjootal nit manam mu jaamu ko def ko yalla neena damay digal soxna mu doon jaamu borom keureum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 amul benn droit amul benn droit ci saaku ceeb bu ne ci kër gi mu tibb ci kopp ceeb maye ko lu dul ndigalul boroom këram la bu ko defee rek bu yomal xiyaamee da koy fay su ko defee bu yomal xiyaamee dina ko fay kon yooyu ay àq la yoo xam ni soxna daf ko yoreel boroom këram ah moom mii di borom kër gi itam nag ginnaaw bu amee soxna dafa am lu ko lislaam sant xam nga dafa am loo xam ni moo mujj muy muy muy muy muy muy ay dóor ak ay xas ak yu mel noonu moo mujj yow mii di borom kër gi sunu borom nee na bu fekkee ne sa soxna da ngaa gis ci moom loola naqari yàlla nee na njëkkeel fa'izuhun na mooy na nga waxtaan ak moom na nga ko waar waaye koo tanewul nag xam nga koo tanewul mënoo koo waar waaw da nga koy tane xam nga dañoo toll jamono boo xam ne gis nga borom ndax dari dafa wax ni wala yaxillu lahu an yafala fi'lan xatta ya'lama xukma la fiihi nee na daganul ci benn mukallaf muy jëf-jëf jo xamne xamul lu ci kon bo dee góor wara tak soxna demal nga jangi lan la yalla wax ci sey bo dee jigen wara sey demal nga jangi lan la yalla sant jigen. pour mu war pour mu war ko jëfé ci seyam lolu bu ku góor ki xamé liko sa war ku jigen ki xam liko war kon ñom ñaar dañuy doxal li leen war donte nak ay nit lañu nit nak moom yalla daf ko bindé muy mer nit yalla daf ko mere. bu méré wax lu mu war wax bu meree def lu mu war def loolu yàlla daf ko bindee doomu aadama waaye itam yont bi sallallahu alayhi wasallam benn saxaaba ñëw na ci moom ni ko dénk ma benn affaire yont bi ni ko laa taxadab maa ngi lay moytandikuloo bul mer mu ni ko dénkaat ma mu ni ko laa taxadab bul mer mu ni ko dénkaat ma mu ni ko laa taxadab bul mer baa ko ay yooni yooni yooni yooni yooni yoon kon yàlla ne ca ca suuratu nisa saar bi mu tuddee jigéen ñi xam kon yàlla teral na leen yalla teral na len motax mu tuddé len sar motax tax yonent bi wax ni wama akramahunna illa karimun neena ku len di teral rek di nga tedd waye ku len di toroxalit yonent bi len xaro sa torox toroxte toroxal jigen nak moy jigen buy def lama wara def yow fo tourné rek di torox di tek torox tañ ci teral lolu moy toroxal waaw nee neena bu la toñé maa ngi jégalu toog toog naa la de. amul solo amul solo ci biir wax ji rek dafa am ay kàddu yoo xam ne. waaw dafa maa dugg loolu ma bëggoon la koo laaj bala ngay daaneel. waaw hmm, ba xam loolu lu ci lu ci yàlla wax. Uh-huh. maanaam nekk ak ku la ëpp doole. waaw ëpp la koom-koom. Hmm. ëpp la sañ-sañ ci fi ngeen bokk nekk. Hmm. te ngeen nekk ci weeru koor. bi ki des. mooy nan la ni war a sàmme njaboot gi ak dëkkandoo yi ci diggante natt muurum koor. ci des ci yeexalu koor gi mm-hmm. bi ki des mm-hmm. mooy balante àq bi ci ci ci ci dëkk bi léeg-léeg mm-hmm. bu tabaski ma gis ku ne dugg ci kër baal ma baal ma baal ma yooyu dañu bëgg ñu faram-fàcce ko gone yi ndaw yi xam wax naa léegi léegi léegi ci laa jëm waaye waaye waaye kii di borom kër gi faaw ma faaw ma faaw ma wax ko waaw lu mu gàtt-gàtt rek li ko lislaam sant pour wax ko ni gis nga dóore moo mujj yàlla nee na boo gisee la naqari sa soxna li ngay njëkke ne li ngay njëkke mooy fa faay suuxun na mooy na nga ko waar na nga bayyi ba guddi yalla neena war ga nak bu mu miti bul bul jek jek eh tap tap eh jógal yow ma wax la yalla neena bal ba guddi ba mu tëdd neena nga nga bes ko nànk yàlla nee na fekk nga begal ko na fekk na nga begal ko nang ko nang ko jox reer bu baax tegal ko ca ye ya ca waral di yeb bes ko nank bu reeree ba sur ba tëdd ba jappante gi na nga bes ko nank mo ah soxna si ñun kat dañu bëgg dama bëgg nak ñu waxtaan ndax gis naa la nga def nangam ak nangam ak nangam te kat bëggal naa la njaboot gu baax nag ci sa sëy bii su sañoon nga am fi ñoo xam ne may gën te bu ñu dëkkee nii sunu njaboot seen gàllaaj day toj fu ñu jaar nañ fu ñu jaar ñu yuuxu leen sàccee wala yu mel noonu noonu ngay def ak moom yàlla nee na boo defee ak moom noonu déggul wax juróohun na fil ay moo ci topp yàlla nee na nga gàddaay nga gàddaay ko ci lal bi mais gàddaay ga nag yàlla nee na jours ñetti fan nga koy gàddaay ci lal bi yàlla nee na bul tëdd ak moom ci lal bi bu tëddee ci néeg bi demal nga tëdd ci saal bi boo ko mënee boo ko mënee ndax am na ñu ko ah, boo ko mënee ah, bu tëddee ci néeg bi yàlla nee demal tëdd ci saal bi wala nga dem tëdd ci varanda bi wala yu mel noonu wax juróom na fil daa jexe yàlla nee na boo ko waaree nag déggul boo ko waaree déggul nga gàddaay ko faalewu la yàlla nee na wadribuhunna yàlla nee na ay dóor nag soo ko nag bu mu tërgal bu mu am cicatrice bu mu damm bu mu dem hôpital yàlla nee na genre dóor yooyu laa la sant mag ñi nag nee nañu koo waar déggalu la nga waxtaan ak moom déggalu la nga gaadaay ko déggalu la boo ko dóoree weew kon nag borom kël ren rek moo la war mooy nga yaatal sa xol te muñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay soxnaam sonalan lañ ko xam nga weer li tax mu doon vingt-neuf yonent bi ay soxnam ñoko sonal ba mu genn kër gi fay mom sayyidna Muhammad bu ko soxnay musa na sonal du len dur du len saga du len xas mais day fay day genn kër gi ba mu genn kër gi ni len dina gaday kër gi weer bu ko defé genn genn mën régler nak genn mën xam sama cër ay soxnam la wax dem mom yonent bi bi mu gàddaayee ba ba mu am ñaar fan ak juroom ñent yonent bi delu ci kër gi bi mu dellusee ci kër gi dug xam nga lan la ko soxnay wax ñaw yaa ni woon yaa ni woon da ngay da ngay dem weer ñëw manqué na benn fan de mënoo woon a toog ba weer bi mat Jibril ñëw wokk ko ni ko xoolal mu xool gis weer wi génn mu ni leen weer waa ngi nii feeñ na weer wi rek weer wi rek ñaar fan ak juróom-ñeent la looloo tax weer jugee ci fanweeri fan di dem ci ñaar fan ak juróom-ñeent